njariñ ji sunu borom daf koo dëxañ ci biir loolu tënk bu gàtt la ci ngëneel yi nga xam ne sunu borom jegleel na ko téere bu tedd bii ak jeexit yi nga xam ne dana ko def ci doomu aadama waaye ki nga xam ne nag daf koy jàngale nga xam ne dafa fab yitteem jépp jëme ko ci jàngale téere bi yàlla bi yonente bi alayhi dafa wax ci ñoom hadis bu am solo boo xam ne bu mat a taxaw la خيركم من تعلم القرآن وعلم الإمام بخاري نتلي نكو كي جنتيين موي كي جانج القرآن بنا بي ديكو جانج فوفنا برام خم خمي دنجي سرح الويات داخ دنيو وخني يوننتي بي عليه الصلاة والسلام موم نيم دون دوندي القرآن كي كوي دوندي نون نغا خاني مو ديغي نون القرآن جيفلانتي نون القرآن ديكو جانجلي كوكو موتاخ موي وخ te yonent ali alayhi salaatu wasalaam moom na doon dundé alquran bañ ko laajee sayyidatuna aisha dana kana quranan yamshi ala al ard moom boo bëggee xam kan moy yonent rek moy alquran ji dox ci kaw suuf demal nga jàngi alquran la diglé ci bax ci lu bax lamuy muy ci safan yermande ja ca nek ak yu am solo ya ci nek yépp boko jangé ba dégg ko jappalé koku moy mooy ali bi alayhi mu nekk téere boo xam ne ku ko jëfee maanaam ku ko jàng jàng gi rek ak jaamu yàlla la goo xam ne sunu borom la ci bindal tuyaaba waaye ku ci àttewu it àttewu nga ci àtte bi sunu borom bëgg ñu àttewu ci ndax ku ci àttewuwul sunu borom nee na ab saay-saay nga sunu borom nee na ab tooñkat nga bal ab yéefar nga sax nag far wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kaafiruun fa ulaika humul zaalimuun فاولئك هم الفاسقون كون كو اتيو سي لنين نودل القران ملو يي سونو بوروم ميغي واخني ابليكي وونا سي ساكاو تا موي نفاق مانا فسق ظلم كفر نيت ملو ييب ميغي تيو mu nek téré bo xamné képp ku ko japp am karangé juma sëkk képp ku ko top am yërmandé yalla فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون بغينكو توبي رك سونو بروم يرم لين مو نيكي تيري بو خامني مبولم تيري يما سا واتش بايكو سي سونو بروم سبحانه وتعالى مو تي غنا ام جاري موتاخ سونو بروم تاغ نيغا خامني دنجكاي جانغ اك نيغا خامني دانيوي جيفي تيري بي سي بوبام waye digna len ak matal digna len ni ndol la digna len colère gu dox ci digën sen digënté ak ñom digna len ni ndol len ta ziyada ابن ابن عباس نينا موي رؤيه الله غيس يالا الك للذين احسنوا الحسنى وصيام برام سبحانه وتعالى واخني ان الذين يبلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله نيغا خامنا دانيو جانغ تيري بي بولكو تاخاو سي نيغالي يالا يي نداخ كي جانغ تيري بي لاكو تيري بي دي ديغال موي جولي جيروم مو دال تي نيك li ko sunu borom jox ci wërsëg mu nangu ko dépensé waat ci yàlla fi zirri wala alaaniya nee na ñooñu la ñuy yaakaar ci seen jëf joojee bu fekkee dañuy commerce bénéfice bañ ciy yaakaar nañ xam ne du nekk luy làmb danañ ca jot nañ ko bëggee danañ ko ni amee te it sunu borom dana leen fay te dana leen jox ndol leen loo xam ne ci ngëneelam ak ci coobareem moom yàlla la leen koy joxe. kon alxuraan moo nekk commerce boo xam ne sunu borom daf koy fulal borom wenn xaraf wu ci nit jàng sunu borom ful ko ba muy fukk jàng alxuraan moo gën àdduna ak li ci biiram yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni afala yaxdu ahadukum ila al masjid fa yaalam ay yataallam ndax kenn ci yéen du xëy dem ci jàkka ji ngir jàngi alquran aw yaqra'u aayatayn min kitaabillahi xayrun lahu min naaqatayn nee na jàng benn aaya ci téereb yàlla bi moo nga xëy di kër kër yi ba am ñaari giléem yu mag li muy nuru nuru alali àdduna nee na jàng ñaari aaya ko gën wa salaasun xayrun lahu min salaas nee nga jàng ñetti aaya ay yu alquran moo gën fuuf ngay kër kër ci àdduna ba am ñetti giléem واربع خير له من اربع arbaun nga jàng ñenti aayay alquran mo gën nga nek ci aduna ba am ñenti gilé wa min a'dadihin min al ibil daal na nonu nga koy topé nak aayab alquran bu nek nga xamné mo gën ne ci lenen bu amu gilém te ku ne xamné li nek ci alquran ci aaya boko dajalé am limbo bu ci gilém da nga bari alal lool kon jàng alquran mo gën fagu alali aduna te it ki déggu kàddu yàlla googu ne ca di ko jàng ba man ca lam ca man sunu borom nee na ëllëg dama koy booleek mbooloo moomu nga xam ne mooy mbooloo mu tedd ma te mooy malaayika yu tedd yi nga xam ne sunu borom daf leen di la wal maahiru bil quran maa safarati alkiraami albarara ëllëg ñooñu la ko sunu borom di boole même barab bi nga xam ne dañ ciy jàngi alquran rek nga teewee ko te jàngoo dana la jural yiwu màgg a màgg ndax barab boobu lañ fa jort mooy sunu borom dafay wàcce ak dal foofu jafe-jafe du fa am demal ci daara alxuraan yi donga yi jàng alxuraan ak seen daara yi leen di jàngal jamono bi nga leen di fekk ñu ne ci njàng mi dañuy dund féexu xol akuk dal duñu am lenn lu ñuy xalaat waaye yërmande yàlla it sunu borom daf koy wàcce ci ñoom yonente bi alayhi salaatu dafa wax ne majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llah yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasunahu baynahum illa nazalat عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم نانا بيب برب بو خامني مبولو دنج فا داجي دي جانغ القران سونو بروم داي واتي نيوم اك دال يرمندي يالا داي واتي سين كاو ملائكه يرمندي دنج لين دي بيك وور لين بوكو سوفي سونو بروم داف لين دي ليمالي تي ني نيك فا موم كون دي جانغ القران ولا nga nek ci barab buñ koy jangé luma ta baye xel la même buñ tollé ci diko jàng nga tok diko diglu di xerawlu fay waral yërmande yàlla wàcc sa kaw fa idha quri alquran fastamiu la wa ansitu laallakum turhamun tayit jàpp gi ak jàng gi denkan la lo xamne ne yonente bi alei salatu salaam moo ko dénkaane woon abi awfa da fay wax ne biñ ñu laajee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dañoo bëgg nga dénk xeet wi ndénkaan loo xam ne danañ ko mën di jëfandikoo nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam la dénkaane mooy kitaaballah allah lim dénkaane mooy téereb yàlla bi moom la dénkaane moo tax ibnu hajar rahimahullah day wax ne al muraadu bil wasiya bi kitaabillah dénkaane gi yonente bi dénkaane woon téereb yàlla bi ci biñ ko laajee lan lay dénk xeet wi nee na lañ ca jublu mooy xifsuhu xissan wa maanan mooy wattu téere bi wattu ko maanaam sàmmal ko sunu borom waaye mokkal ko mu nekk ci dënn yi fa yukramu wa yusaanu wa yuttabaau ma fiihi nga xam ne dañu koy teral moom alquran ak di ko ñoŋal ak li nekk ci alquran ci ay orientation yi ñu fexe ba tënku ci wa yudaawamu ala tilawatihi wa taallumihi wa taalimihi boole koog nag saxal diko jàng ak diko jàngale ñi nga xamne ñom ñoko ñoo yit mu nek ci seeni deun ñoñu sunu borom daf leen di teral fi ci aduna waaye daf leen di teral ëlëk yowmal khiyam hamilul qur'an mukarram fi hayatihi wa baada mamaatihi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ñi nga xamne ñoo mokal al qur'an mu nekk ci seen i dënn ñooñu ñooy njabootug yàlla te ñooy ay xejjam ñooy njabootug yàlla te ñooy ay xejjam muslim daal di nettali ne ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah bu dee fii ci àdduna yonente bi alayhi salatu salaam daana jiital ki nga xam ne moo gën a mën alquran ci buñ dee tànn njiit ci julit ñi bokk na ci nattukaay yi nga xam ne danañ ko natte kay jiitu buñ tollee buñ tolloo ci ngëneel tolloo ci ay at tolloo ci ragal yàlla tolloo ci luñ dégg diine ji dañuy seet ka ci gën a man alquran ñu jiital ko kon ñi man alquran ñoom la yàlla jiital fii ci àdduna waaye buñ faatoo it ñoom la sunu borom di jiital ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam keroog ci xasutu uhud bi xare bi jeexee bi ñu denc saxaaba yi daf doon laaj ana kan moo gën a man alquran buñ ko indee mu teg ko ci kanam ñi ci des topp ci ginnaawam kon ni ni muy jiitoo ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam yi noonu lay jiitoo kon lu mat a bàyyi xel la lu mat a yittewoo la تيد ليلة وخمن إلّا يوم الخيام دفع رمو دفع رمو برام دفع رمو دفع ليلة برام تكنم سنو برام سبحانه وتعالى ينتب عليه الصلاة والسلام ما وخن اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابي دلنا جنگ القرآن دخ إلّا دينيو يو درمو نيم تيد كيكو مكال سنو برام دفكو ييجل تي برام درجة يكويا تي جنة النعيم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل kama kunta turattilu fi dunia jàngal te yéeg jëm kaw comme ni nga doon jànge fii ci àdduna fa inna mansilaka inda axiri ayatin taqra'uha soo yéeg nag jëm ca kaw na nga xam ne fa sa yemuwaa fa sa tolluwaay di yam mooy fa sag mokkal yem saa boo jàngee ba àgg ca aaya ba nga xam ne fa la sa mokkal yem foofu la sa étape di toll ci ni ngay kawee jëm kaw mu mel ne kon téere la boo xam ne moom rek moo mën a orienté nit ba du sànku ndax yonente bi alayhi salatu wasalam moo gën a mat ñëpp am xel gën a rafet ñëpp am xel waaye la ko mat ba mu tegee ci siraatal mustaqim ba làq ngërëmul yàlla alquran la waaye du xelum boppam moo tax mu doon wax ne ni ko alxuraan gindee day ak ni mu ko tege ci yoon kàddu yàlla gi subhanahu wa taala xulin dalaltu fa innama adillu ala nafsi bu ma sànkoo day sama xelum bopp rek moo ma sànk waaye wa in ihtadaytu fi bima ma yuuxee ilayya rabbi su ma gindi ko nag te tegee ci siraatal mustaqim nañ xam ne kon alquran bii nga xam ne moom la ma sunu borom wax yu moo ma gindi moo ma teg ci siraatal mustaqim muy téere boo xam ne mu amee ngëneel fa sunu borom ak li mu lépp ci li ñu ci moom téere bi ci boppam ak moom ki jàng noonu la amee makaana bu kawe ci cheikhul xadim radiallahu anhu ndax moom alquran doy na ci rek misaal mu wane ne lépp lu mu am ci digganteem ak boromam alxuraan moo ko ko may ndax moom diggam ak alxuraan bu ñuy xool mën nañ ko séddale ñetti étape maanaam am njàngam ci alxuraan maanaam am njàngam ba mu ca tollee wattu na ko bind na ko ni ko doomi soxna yépp di defee